lii mu doon jàng mooy suratu yaasin yaasin saar la wu bari ngëneel ngëneelam ya yonantu bi sallallahu alayhi wa wax na ci ci bari ci ay ahadis bokk na ca yonantu bi nee na képp kuy jàng yaasin bu yowmal qiyaamee yaasin day sol robbu avocat défendre la sa digganteeg sa borom soo ko jàngul nga koy déglu moo xam ci sa téléphone nga koy déglu wala ci tele bi wala ci rajo bi wala ci ordinateur bi wala ci internet déglu gi koy déglu rek yàlla dana la ci bindal ay malaaka yuy sax di la jéggalul yàlla moo tax yonentu bi sallallahu alayhi daan wax ne tashfa'u li qaari'iha wa tastaghfiru li mustami'iha loo rek nga della ñaareel bi tamit wax na ne yaasin ku ko jàng wenn yoon rek yàlla dana la bindal yoolab ku wàccee alquran fukki yoon xadis boobu bayhaqi yu moo ko solo mu ne man qaraa yaasina fa ka annama qara alqurana ashra maratin mu bokk ci ngënee li yonentu bi sallallahu alayhi ne ku jàng bi nga xëyee suba teel danga nekk ci mbëgte nekk ci xéewal ba bay ngoon di jotee nga jàng ko ngoon yàlla defal la sécurité ak xéewal ak mbégte ba bër ba fekk bay bër di setee xadis boobu daari mbiyu moo ko solo mu bokk ci xadisu ibnu abbas yi yonentu bi ne man qaraa yaasiina xiina yusbixu utiya yusra yawmihi xatta yumsiya wa man qara'aha fi sadri laylatihi utiya yusra yusra laylatihi xatta yusbiha bi ci tegu tamit yonentu bi nee na loo gis lu ne am na xol waaye nag dëgg-dëgg alquran bu doon jëmm xol ba mooy li kulli shay'in qalban wa qalbul quran lu tax nag muy xol yaasin ni ko sëriñ bi waxee démb li muy jàngale yëpp wàllu pas-pas la nu ñu war a wéetalee yàlla ca kennam ka nu ñu war a dëggalee yonantu bi ca yonantoom ga nu ñu war a mën a settantal ci miracle yi yàlla def ci suuf seeg asamaan seeg jant bi ak taxawaayu bis penceeg wal bufta baak yooyu yëpp nga man cee xalam ba xam ne yàlla kenn la loolu lépp nag xoola koy fas li koy xool di fas nag moo waral kon lu ñuy jëfee ki cër amul ci yaasin du julli du woor du joxe asaka du aj màkka yëpp xaqaa'id la te xaqaa'id yooyu qalbu moo koy def moo tax mu nekk di xolab alquran moo tax yonent bi ne li kulli shay'in qalbun euh, inna li kulli shay'in qalban wa qalbul quran yaasin beneen hadis bi nee na képp ku jàng ci guddi sàkku ci jëmm yàlla ji yàlla dana la jéggal say bàkkaar ci guddi googa kon war na jullit bu ne rek bala ngaa tëdd fexe ba jàng benn yaasin man qaraa yaasin fii laylatin ibtigaa wajhi laa gafara laahu lahu fi tilka laylati xadis boobu mi ngi ci sayhu ibnu Hibaan mu bokk ci xadisu Abdullahi ibnu Jaabir yi ba tey moo tax foor googu saar wi foor yiw la te ku yéene xeetam xeetam yu yiw la mu ne man daal bëggoon naa képp ku bokk sama xeet bi rek nga góor góorlu ba man yaasin mu nekk ci sa xol yonentu bi nee na bëgg na bépp jullit bu bokk ci xeetam bi lu sa aliwa gàtt gàtt loo naqari naqari xel fexeel ba yaasin nekk ci sa xol bi nga mokkal ko kon loolu yow mi jàng français demal nga seet ko ci niñ ko traduire nga jàng ko yow mi man anglais espagnol lépp yàlla dimbale nañu ba traduire nañ ko ci alquran demal nga góorgóorlu ci moo tax mu ne la waddittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati yonentu nag lu lu mu bëgg lu ne soo bëggee texe da ko koy bëggale nañ ci góorgóorlu kon kenn ngëneel yi ma wax yëpp far na ko tënk ci benn xadis boo xam ne dugal na li ma wax waaye dugalaal na li ma waxut nee na yaasin li ma quri at la yaasin daal loo ko jàngal yéene ko ci rek danga nga ko am kon yow mi xëccoo maire yi ci gox yi jàngal yaasin incha allahu danga am résultat bu baax yow mi may déglu nekk université wala foo mën a nekk di def examen jàngal yaasin incha allah da at mi yow mi bëgg a tukki ak foo man a bëgg a dem ci àdduna bi wala yaa ngi tukki bëgg ay kayit wala yaa ngi déposé say CV bëgg ñu jël la jàngal yaasin nga sellal ko incha allah da am li nga bëgg. jàngee nag ñi ma tudd ak tudd te amuloo li nga bëgg yaasin ma ma nga fa nga newoon waaye yow yaa ne fa nga newut. su boobaa seetal sa bopp rek waaye yaasin moom la ci yonent bi wax moom du jug yéen yaasin ma nga fam ne waaye yow boo newul fi nga ne tamit doo ko mën a jariñoo moo tax kon mu ne yaasin li maa quri at la kooka dugal na mbooleem luy bëgg-bëgg ci nit yi ma wax yëpp nag njariñ la yuy dellu ci kiy dund waaye yaasin ëmbati na ay njariñ yuy dellu ci kii dee alquran bëri nay saar waaye yaasin la yonent bi cité ne jàngal leen ko seeni niiw iqra'u ala mawtaakum suurata yaasin ku am niw ñu ne génn na àdduna jàngal yéene ko bi moo tax suñ mag ñi kenn du leen jàngal diine bu nit mosaan a génn àdduna ba ñu denc ko bañ ne suul bi mat na maasale na ñi seet ku man alquran ñu ne taxawal ca bopp ba jàng yaasin ñu ne yow mi taxawal ca tànk ya jàng mulki ndax yàlla man koo dimbale ba du am benn fitna du am benn jafe-jafe ci biir bàmmeelam léeg nag nit weddi ne ay armeel ku ñu rob kenn waru faa jàng alquran hadis bi moom dafa ne ku dee rek jàngal leen ku dee yaasin ki dee nag xaqiqatan mooy koo xam ne ruuxu ga nekkatu fa rek moo xam denc nañ ko denc guñ ko loo ca def tamit moom dafa ne iqra ala mawtaakum rek surata yaasin yow na boo bëggee jël ki dee wane ne lim ci namm ala mawtaakum mooy kuñ teewal ab digga mu nekk ci sababu dee waaye deeagul kooku majaas la majaas na ci xam-xamu balaaka balaa mën a wér dafay am xarinatu waaye bépp majaas bu amul xarina rek wax ju wax ju wax jooju duñ ko mën a nangu kon nag boo ne mawtu ji mi ngi ki namm ku nekk ci sababu dee kon war ngaa andi xarinatu buy tegte ne loolu la ca namm parce que amul ci amul ci hadis bi te ànd ak loolu tamit beneen hadis dafa ñëw dëggalaat wax ju mel noona yeneen bi nee na amul benn niiw buy génn àdduna ñu jàngal ko yaasin lu dul ba yàlla jàppandal na ay mbiram ci biir ma min mayitin yamuutu fa yuqra'u indahu yaasin illaa hawana laahu alayhi kooku ma ngi ca daw si kon nga xam ne kon jàngal nit ki yaasin ak fu mën a nekk génn àdduna baax na dara nekkut ci an àndal loolu waxuma yaasin rek mais jàngal nit ci ay armeel nga dugg fa jàng xul walaahu yéene ko waa armeel ya dagan na hadis tegtale na ko hadis bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax daarul qutni moo ko solo mu ne yonentoo ne man daqalal fa qaraa qul huwa allahu ahad ihda ashara marra summa wahaba sawaabaha lil amwaat utiya min al ajri bi adadil amwaat ci armeel jàng fukki qul wallaahu ak benn yéene ko waa armeel ba ñoom ñëpp dañ ca jot waaye yow da am yool bu day na nga nekk ci armeel ba kon nga xam ne kon jàngal nit ku génn àdduna euh, maanaam alquran moo xam ci armeel yi la moo xam ci kër ga la dara nekku ci dagan na hadis yi ma wax tegtale na ko waaye tamit tegtale na ko ku dee ma nañ ko jàng alquran mazahib yi ñeent la imaamu ahmad shafiiyu imaamu malik ak maanaam eh, abu hanifa soo jëlee ci ngiru imaamu ahmad dafa bokk ak ak ak ngiru imaamu shafiiyu dafa bokk ci ponk ak julleeg niiw ci ñoom dañ koy jàngal fatiha fatiha ci alquran la bokk te kii dee dee na ba pare malik nag moom bu fekkee ci ngiram la ak Abu Hanifa ñaan lay doon waaye amul jàng al alquran waaye ñaar ñee ma wax la ñeenteeli ponk ba ci julleeg niiw mooy jàng fatiha fatiha alquran la di te ki ñu koy jàngal ni génn àdduna ñu ngi ko sàng kon man ñoo jàngal ku génn àdduna alquran eh, loolu tamit muy boo jëlee mafhoomu al man tuuqul quran bu mën ko jël ci ci mafhoomam bi mooy ne boo demee ca ibnul qayyim téere bu ñu tuddee ar ruux mu ne yonentu dafa ñoo sant ne buñ duggee ci armeel nañ nuyu waa armeel ba xadis bi muslima ko indi ne ku duggati ci armeel na wax ne asalaamu aleykum ahla min al muminin min al muslimin wal min al muslimina wal muminin wa inna insha allahu bikum la laaxiquun nasalullaha lana al aafiya ku dugg ci armeel ñaanal loolu su ko defee nag kon mu ne baat boobu nga leen di ñaanal nuyu gi ak nga toog seen armeel di leen siyaara ñoom dañ koy wettalikoo te pourtant nuyoo bi waxi mbindéef la waaw waxu mbindeef ku nekk ci biir armeel bu koy wettali koo waxi borom mbindeef yi nag kon moo ko gën a mën a wettali kon kooka dara nekku ci ñaareel bi tamit boo jëlee ci mafhum yonent bi mos naa yebal benn ñàngal ñu dem ci benn xare yàlla dogal ni samp seen benn xayma bi ci benn palaas ne ko fiñ ko samp armeelu benn toog rek dégg waa di jàng tabaaraka ci biir armeel bi ñoom tamit ñu dem wax ko yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom tabaaraka suratul mulki day jañal képp ku koy jàng ci mbooleem xeeti musiba yi àdduna ak àllaaxira waaye day musal tamit ku koy jàng ci mbugalam bàmmeel ñu ne waaw kon ki nekk ci biir bàmmeelam di jàng tabaaraka waaw kon yow mu nekk ci kaw bàmmeel bi moom mu nekk ci biir boo ko jàngalee tabaaraka wax dëgg yàlla juumaloo ndax la muy jàng moom nga ko jàngal su boobaa kon nag yooyu yëpp mën nañ ko cee déggee moo waral même tamit asar am na ci boo jëlee ci asar Abdullahi ibnu Omar doomi kenn koo xam sharia moo bàttali woon ne su ma génnee àdduna na ngeen ma jàngal suratu baqara ci sama armeel bi kooku kenn du ko jàngal sharia te loolu alquran la moo tax imaam ahmad moo njëkk a wax ne jàng alquran ci armeel bi daala inna al qiraata inda al qubur bidaatun imaam ahmad a ko njëkk a wax waaye ba nga ko waxee ibnu qudaama moo ko ci génnee dafa ànd ak moom ñuy rob benn néew ñu denc ko ba pare benn gumba toog ca bàmmeel bay jàng alquran imaam ahmad woo ko mu ñëw mu ne ko jugal fii li ngay def lii biddaa la bàmmeel kenn du ci jàng alquran bañ demee ba génn armeel bi su ko defee ibnu qudaama ne ko xanaa yëgoo ne ibnu omar àdduna nañ ko jàngal eh, suratu baqara ci ci ci armeelam ba xanaa yëgoo ne xilaaj dafa dékkaane woon nañ ko jàngal commencement wu baqara ak fin wu baqara nañ ko jàngal ci biir armeelam ci kaw armeel bi boo ko waxee nag booba la imaam ahmad ñoom fu leen dëgg jotee ta xam nga texte yi alquran yi ak texte texte yi hadis yëpp ak li borom xam-xam yi wax la loo géeju géeju ci xam-xam munoo jot lépp ca saasa da ngay jot lii di jot lii alamta shay an wa gaabat an ka asiyaaw waaye ba muy jotee loola keroog la woo gumba ba ba mu ñëw ne ko dellul nga dem ca armée ba nga continuer sa njàng ma ñoom nitu dëgg lañ fu leen dëgg dabee rek maanaam ñi ñi ñi ñi dëpp ndax keroog la yëg loola ba mu ko yëgee tamit nga ne ko demal foofu nga dem jàngi yëpp boo demee ci téere yi jàngal nañ leen alquran bañ génnee àdduna Seydi Ahmed Tijani Sëriñ radiyallahu anhu si Ahmad Bamba xaadimu rasul Seydil Haaji Malick El Hadj Abdoulaye Niass moom bàttali woon na ko ba ne su ma génnee àdduna xalifa yaag sarak yi wàccee leen ma kaamil kon nga xam ne kon loolu dara nekku ca boo demee ci albidaayatu wa nihaaya eh, borom borom téere ba Ismail eh, di Imaadu Diin wax na ne Ibnu Taymiya ba mu génnee àdduna avant ñu koy denc wàccee nañ ko kaamil loolu demal ci albidaayatu wa nihaaya da nga ko ca fekk kon nga yëg kon jàngal nit daal alquran wala ñu jàng ko ci armeel dara nekku ci euh, bi ci tegu tamit saar wi ngëneel yu rëy yi ndax ya bëri ndax bëri tur dafay tegtale tedd ak la ñuy tudd moo tax saar wi lu bëri tur la danañ koy tuddee muammimatu moom yaasin danañ koy tuddee daafiatu danañ koy tuddee qaadiyatu danañ koy tuddee yaasin ñetti tur yooyu abubakar ko jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa mu ne ko tawreet de lañ fa daan tuddee yaasin mooy mu ammima mu ne ko maa maanaa mu ammima mu ne ko li annaha taummu saahibaha bi xayri dunia wal axirati moom yaasin ku koy jàng dana la mataleel yiwu àdduna ak wàll axira doo teqalikoog moom mu ne ko daafiatu mu ne ko day jàng mboole musibam àdduna ak mu àll mu ne ko qaadiyatu mu ne ko day fajal bépp soxla kuy jàng yaasin rek yàlla faj say soxla kon ñetti tur lañ ko tuddee woon ca tawreet ta fekk ñëwagut waaye turam yëpp nag li ci gën a siiw mooy sóoratu yaasin bi turam ya bëree moo tax turandooram ya bëri moo waral ñu ne yaasin turu yàlla la am na ñu gëm loolu ñenn ñu ne yaasin turu alquran la ñenn ñu ne yaasin maanaam turu malaaka la fukki malaaka ak ñeent ñoo ko tudd loolu la borom ruuxul bayaan gëm waaye nag ibnu abbas ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañ ne yaasin turu sayduna muhammad la bi nag moo ci gën a siiw wax jooju moo ci gën a moom la Ibnu Abbas wax te mooy xibrul umma moom la yonent bi woowoon ba mu ñëw mu ne ko ŋaal mu ŋa mu ñaan tafli ci gémmañam nga ne yow yàlla yàlla nga ko déggloo alquran taawilu alquran kooku li mu wax ci alquran ñi gëm ko ñaareel bi tamit moom la yonent bi waxal boppam yonent bi nee na yàlla tuddee na ma juróom-ñaari tur ci alquran inna allaha sammaani bi sabaati asma yàlla tuddee na ma ci alquran abdullahi jàng ko ko wa innahu lama subhaana la si asra bi abdihi yàlla tuddee na ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng nga ko muhammadu rasulullahi wa sallam maahu ashiddaau ala alkuffaari na ko ahmadu jàng nga ko yaati min baadi yasmuhu ahmadu yàlla tuddee na ko muzammilu jàng nga ko yaa ayyuhal muzammilu yàlla tuddee na ko mudassiru jàng nga ko yaa ayyuhal mudassiru yàlla tuddee na ko taaha jàng nga ko taaha ma anzalna alayka alqur'ana yàlla tamit tuddee na ko yaasin mooy yaasin wal quraanul hakim jii nii wal quraanil hakim jii nga jàng fii kon juróom-ñaari yi la yàlla tuddee yonantu bi ci biir alquran yaasin nag soo ko jëlee di calculer aayaat yi moom yaasin dana la jox juróom-ñetti fukki aaya ak ñett moom la moom la maam la saar wi ak ñett mooy saar wi soo jëlee baat yi juróom-ñaar téeméeri baat la ak ñaar fukk ak juróom-ñeent 729 ci ay moo la moom saar wi soo jëlee xaraf yi nga calculer ko ñetti junnee xaraf la saar wi nag bi mu wàccee yonentoo ne nañ ko dugal ci diggante faatiri ak saafaati li ko waral alquran dafa nekk ci dayoo eh, maanaam toftale bi nga jàngee suratu faatiri avant muy jeex yàlla defa ne yonantu bi de nazir la ba mu leen ñëwalee dañ ko weddi wa jaakumu naziru waaye ànd ak ba mu ñëwee weddi nañ ko wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in jaahum nazirun ànd ak loolu lépp nazir bi mu ñëw ñoom nañ ko ne du moom waaye boo jàngee tamit saar wa balaa jeex dana ci tudd biram jant beeg weer wi moo tax mu ne wa saxara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamman am na ci saar wa waaye tamit moo tax tamit alquran dafa nekk ci dayab toftale comme nag yéen a waxoon bu nazir ñëwee ngeen gëm ko te ñëw na ngeen weddi ko maa ngi waat ne man yàlla ne kii mooy sayyiduna muhammad ne wal qur'anil hakim innaka la minal mursalina ñaareel bi tamit comme tuddoon na fële jant beeg weer wi dana ko wax fii ci saar wi wa shamsu tajri li mustaqarin laha dalika taqdirul azizil alim waaye dana wax tamit ci ne wal qamaru qaddarnaahu manazila ñee jàng wal qamara qaddarnaahu manazila kon lu ci mën a am nag toftaloo googu mu toftaloo moo tax bi saar wi wàcce yonantu bi ne nañ ko def ci diggante ñaar yi mu nekk saar wi nag wax naa la ko eh, wax naa la ko yaasiin ñeent lañ wax ñi ne turu yàlla ñi ne turu malaaka ñi ne turu alquran ñi ne turu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa suñ mag ñi kenn du leen jàngal diine ñoom dañoo gëm ne turu sayduna muhammad la ne ko sëñ bi waxee démbu moo tax ñoom ñu ne du turu malaaka du turu yàlla du du turu alquran waaye turu sayduna muhammad la moom la maam alaaji malik gëm moom nga dégg mu ne yasiinu yaqra'u yaasinan fa jaa lahu wiqaayatan lam yanal man kaana fil ujumi moom la maam xalifa ñas gëm moom nga dégg mu ne war rabyu wa dabbu fil baydaayi qad shahida an laysa azamu min taaha wa yaasini kon suñ mag ñi kenn du leen jàngal diina luñ ci wax ñi bàyyi ko ca yaasin mi nag eh, cosaan ba baat bi moo doon insaan yaa insaanu la waaye dafa ñëw ci langu tayu arab dafa bari ay qabail ni ko olof amee séeréel am ko ñeneen ñi am ko noonu la amee tamit ci alquran kon baat bi insaan la woon boo jëlee insaan nga tasxiir ko unay siinu la lay jox ñi jàng naxu ñoo xam loolu soo ko tasxiiree tasxiiru ta'zim la unay siinu la lay jox nga dagg genn wàll ga muy xamsa ga ak nuun ga ak yaaga mu des siinu nga jël xarfu ni daa dugal ko ci muy yaa siinu loolu mooy ci luxatu tayu moo tax insaan yaa siinu bi maanaa yow doomu aadama yow nit ki te nit kooka ma nga kenn mu sayduna muhammad kon baat bi cosaan la moo doon unay siinu muy tasxiiru insaan nga dagg chatru ba mu des maanaam siinu arab danay waxee noona euh, baat bu mat ba pare nga ñëw dagg ca dangay dégg kii gëñ ne ay mu laayi mooy cosaan la barke yàlla waaye dagg miim ga rek léegi ngeen di waxaat mbir mi kon loolu day am kon yaasin a ngoog teg leen seen baaraam